أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته comme niñ ko baaxoo def ci waxtu wu nekk dajeeg yéen ci téere bii de charhu du'a min alkitaabi wa sunna ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala tey nekk fukkeeleel bunt ak juróom-ñett ba tey ci ñaan tey ñuy jàng an la ya'tadi fi du'a kii ñaan bëgguñu mu ëppal ci ñaanam bi muy ñaan moo xam ñaan bi day yëkkati kàddoom ci kaw di yuuxu walla mu jéggi dayo ci ñaan bi ñaar yépp sharia da koy tere sunu boroom subhanahu wa taala gërëmu ko te bëgg ko te daf koy tere loola tax mu ne naha rabbuna jalla wa ala anil i'tidaai fi du'a sunu borom tabaraka wa taala mooy ki nga xam ne moonu tere ñu jéggi dayo ñu jalgati ci ñaan buñ koy ñaan moom mooy sunu boroom moonu moom moonu sant jaamu moonu sant ñaan kon yoon wi mu rëdd anam wi mu tërale ne nañ ko ñaanee noonu kenn ku nekk ci ñun war na yell ci ñun nga jàng anam boobu ba boo waree ñaan nga bañ a jalgati nga bañ a jéggi dayo ci ñaan gi nga xam ne moom nga koy ñaan loola tax sunu boroom subhanahu wa taala mu wax ci suratul aaraaf ay juróom fukk ak juróom mu ne ud'u rabbakum tadarruan wa xufiya innahu la yuhibbu almu'tadin sunu boroom ne ñaan leen seen boroom woo leen ko moom seen boroom ñaan leen ko bu ngeen koy ñaan na ngeen toroxlu na ngeen suufeel seen kàddu ndax yàlla day bëggul ñiy jalgati ku dégg aaya bi dina gis ne borom bi tabaraka wa taala ndigal la jiital teg ci tere ndigal li mooy lan mooy ñaan leen seen boroom boole kook toroxlu ak suufe suufelu tere gi mooy seen boroom bëggul kuy jalgati bëggul ku jéggi dayo bëggul ku ëppal ci ñaan gi loolu moo tax mu ne jaa an nahyu aqbal amri bi du'a tere gi moo ñëw ginnaaw ndigal li sunu boroom dafa joxe ndigal ci aaya bi ba pare bu aaya bi di jeex mu tëje ko tere mu ne wa tadullu hadihi al madda ala tajawuz fi shay nee na li muy tegtal day wane ne jalgati mooy jéggi dayo fi nga waroon yem ci ñaan bi nga ëppal mbokk yi kon ay mbiram a ngi nii ay anam a ngi nii yoo xam ne wàll yi anam yu mel nii dañoo tere nit ñaane ci ndax mën na laa yóbbu sax ba nga nekk ab yéeféer wala iyaazu billah ñaan ku dul yàlla tàllal ay loxo sa mbindeef lu ñu bind wala ku ñu bind suñ ne ku ñu bind dem na ca ku am bakkan am ruu suñ ne lu ñu bind dem na ci loo xam ne amul ruu du dund ñaar yooyu yépp nag sunu boroom ne ku koy def tàllal leen loxo a ubbi nga bunt ak kéeféer yal nañ ci yàlla musal moo tax fa innahu azamu anwaa'il itida boobu moo gën a rëy ci buntu booboo gën a rëy ci buntu jalgati moo ci gën a tar ndax daf lay yóbbu ci kéeféer looloo tax ab jullit war naa góorgóorlu kem talaayal kattanam xam anam wi ñuy ñaane ba ñaan gi du ko yóbbu ci ak kéeféer mbokk yi ab jullit war naa xam anam wi nuy ñaanee mu góor góorlu ci kemtalaayal kattanam balaa muy dugg ci kéeféer mu ne am na yeneeni modèle yoo xam ne yeneeni façon yoo xam ne euh, kii ñaan dana ci jéggi dayo yooyu tamit dañ koo tere nee na bokk na ci sual ñaan maa laa yaliqu bi saxsi ka talabi manazilil anbiya mooy nit ki ñaan day ñaan ñaan goo xam ne moom xam na ne du ko am xam na ne mënta nekk mu tàllal yàlla loxo di ko ñaan masal misaal mooy mu naan yàlla def mab yonent benn sahaaba bu tudd abdullahi ibnu gaffal dafa dégg doomam di ñaan naan allahuma inni as'aluka al qasr al abyad an yaminil janna yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma ca biir aljanna pale bu weex boobu nga xam ne boo duggee aljanna ca ndeyjoor lay nekk bis moo duggee aljanna yàlla pale boobu bëgg naa ko fa qaala ay bunayati papa ji ne ko ey sama doom salillah aljanna ñaanal yàlla aljanna rek wa taawaz minhu min annaar moytul ci moom safara ñaanal yàlla aljanna moytul safara loolu dong doy na moo gën nga nekk fi naan yàlla bu ma duggee aljanna am na benn pale bu weex bu nekk ndeyjoor yow yàlla pale te xam nga ne loolu du nekk façon ñaan yi dañ koo tere moo tax yonent sallallahu alayhi wa sallam ne innahu sa yakunu fi hadihi l umma qawmun yaataduuna fi tuhuuri wa du'a dana am ay nit yoo xam ne bu demee ba àddina di waaj a jeex ay nit danañu feeñ ci jamono dañuy ëppal ci seeni ñaan dañuy ëppal ci seeni laab bu ñuy laab duñu xam fu ñu yem dañuy dugg ci douze def ci cinquante minutes bu ñuy ñaan duñu xam lu ñu war a ñaan lu ñu war a wax ak lu ñu warta wax yépp ñooñu danañ tàllal yàlla seen loxo di ko ñaane noonu kon ñaari façon ñaan yooyu dañ koo tere mu ne wa minha bokk na ci ba tey su'aalullahi taala ñaan yàlla maa laa yajuuzu an yasalahu loo xam ne daganul ci ñaan nga tàllal yàlla say loxo di ko ñaan ka su'aalil mauna alal xara alal muharramat yow yàlla maa ngi lay ñaan soxna si yàlla bu ma mucc ci moom te du sa jabar loo bëgg diw mii ni ma ko bëggee yàlla bu ma mucc ci moom léeg-léeg nga dégg ab jullit bu naan yàlla bu ma mucc ci ndaw si yàlla bu ma mucc ci yow te takkoo ko kon bu ngeen de dajee yéen ñaar lu xew kon façon ni ñaan yooyu anami ñaan yooyu di ñaan lu araam loolu ab jullit daf ko war a moytandiku wartikaa bi zunub wala ñaan loo xam ne boo ko amee ci ay bàkkaar la la jëmee ab jullit façon ngi ñaan yooyu dañ koo tere ab jullit mu ne wa minha bokk na ci ba tey an yas'al allaha ma ulima min xikmatihi subhanahu wa taala annahu la yaf'aluhu ka an yas'ala taxliduhu ila al qiyama aw an yakuna malakan beneen façon ngi ñaan it boo xam ne dañ koo tere xam nga ne lii dëgg dëgg dëgg ci xerañu yàlla yàlla du ko def nga ne danga koy ñaan yàlla yàlla man de maa ngi lay ñaan bu ma dee de ba yowmal xiyaamati naa fi mujjee de xam nga ne loolu man tane yàlla maa ngi lay ñaan fii ma tëdd na ma fi saakub xaalis fekk xam nga ne asamaan du taw xaalis kon dafa am am mbir yoo xam ne yàlla maa ngi lay ñaan def ma malaaka ma am ay laaf di naaw façon ngi ñaan yooyu dañ koo tere ab jullit ndax loolu mënta ne lu mënta ne loo xam ne yàlla ci kàttanam du ko def jarul nga tàllal yàlla ay loxo di ko ñaan mu mu ne wa min al adwaan an yadu allaha taala bi gayri tadarruin wa xusu kal mustagni an rabbihi mbokk yi bokk na ci li ñu tere ci anami ñaan ñaan yàlla taala te toroxlu woo ñaan yàlla te toroxlu woo jullit buy ñaan dafa war a toroxlu def xusu ragal yàlla di ma sàkku ci boroomam tabaraka wa taala yàlla may ko lim bëgg kon bokk na ci mbokk yi façon ngi ñaan yi ñu tere ngay ñaan yàlla te doo toroxlu wala nga doylu yàlla bañ koo ñaan yow doo ñaan yàlla nga ne ah man de jarul may ñaan lan laay ñaan lu ma koy doyee loolu mbokk jullit yi ci façon ngi ñaan dañ koy tere ab jullit bokk na ci ba tey an yaduwa ala ahli wa maali wa waladi ngay ñaan di ñaan alkande sa bopp di ñaan alkande sa njaboot di ñaan alkande ci sa alal waaw léeg nga gis kuy ñaan yàlla doomam yàlla na nga alku bu dee maa la jur yàlla na nga torox yàlla boo delsi yu demee noonu ab jullit daf ko war a moytandiku bañ a ñaan alalam bañ a ñaan doomam bañ a ñaan ci boppam ay naa dee lu ma fi defati yow yàlla yàlla na nga ma rey na nga yooyu ab julit na ko moytandiku mu ne wa yadxulu kadalika addu'a bi taajilil uquba fi dunia léeg-léeg aussi nga gis koo xam ne day ñaan yàlla mbugalu àdduna yow yàlla yàlla nag ma mbugal yow yàlla yàlla nag ma rey yow yàlla yàlla naa accidenté ndeysaan fekk naa benn jigéen bu ñu tuumaal ci polisu géejawaay indi ko jàpp ko ñu koy yóbbu di ko juge ji mu naan wallahi li ngeen ma wax bu dee maa ko def yàlla na oto bi accidenté yàlla bu ma génnaat yàlla naa dee ci kaso bi yu demee noonu ab jullit du ko ñaan waaw del ñaan rek yàlla na yàlla leeral bu dee lii dëgg la yàlla nañu yàlla won dëgg loolu la ab jullit di wax waaye yàlla naa dee yàlla naa torox te loolu benn bu la ci dal musiba la ci yow du baax sa àdduna du baax sa àllaaxira kon yu mel noonu mbokk jullit yi ñu dénk suñu bopp di leen dénk ñu moytandiku wala di ñaan yàlla tabaraka wa taala bi taajilil uquba fi dunia ñaan yàlla yow yàlla day maa ngi lay maa ngi sàkku ci yow ah li nga ma nar a mbugal àllaaxira mbugal ma ko fii ci àdduna yu demee noonu te yàlla moom bëri na yërmande ñaan ko rek njéggal moom moo gën nga naan ko rek maa nar a mbugal alaxira mbugal ma ko fii ci àdduna yow kay ne ko yaay borom yërmande ji yaatu ji maa ngi sàkku ci yow njéggalu àdduna ak alaxira loolu moo gën a baax beneen bi bokk na ci an yaddu ala nafsi bil mawt di ñaanal sa bopp dee woy naa dee woy lu ma fii defati loolu mbokk yi duna sababi shari te amul lenn sabab boo xam ne sharia moo ko santaane ah wala fitnati diin nga jàpp ne diine ji dafa daf la dafa tegu sa kaw nekk fitna looloo tax nga yàkkamti ñaan sa boroom pour mu mbugal la àdduna wala mu yàq nga yàkkamti ñaan sa boroom pour mu rey la wala mu teg la ay jafe-jafe wala mu teg ko sa njaboot wala mu teg ko ci sa kaw alal wala say mbokk wala dëkk bi nga nekk mbir yu mel noonu ci ñaan mu nekk mbir yoo xam ne juróom-ñaari mbir la tere nañ ko ab jullit naka moytandiku ndax benn bu ci nekk sharia moo la ko tere su fekkente ne li nga wax am na mooy gëm nga yàlla gëm nga yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam kon fexeel nga tënku ci teggin yi beneen bi ci tegu mooy an yabdaa daa'i bi nafsihi ida daa li gayrihi bu fekkente ne da ngay ñaanal keneen da ngay ñaan di bëgg a ñaanaale keneen balaa ngay ñaanal keneen ñaa njëkkeel sa bopp ndax kat wala fi ne nañ bala ngay laax jaay laax lekk bala nga ne naam nefa moo tax ñu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana nekkoon na iza zakara ahadan fa daa lahu badaa bi nafsihi yonent bi bu daan wax kenn di ko ñaanal balaa muy ñaanal kooku day jiital boppam wa yushhidu zalika bi umumi badaa bi nafsik loolu mu ne wane na ko yonent bi saa sallam nee na tàmbali leen ci seen bopp kon booy ñaan ñaanal sa bopp booy ñaanal sa doom njëkkeel sa bopp booy ñaanal sa borom kër njëkkeel sa bopp booy ñaanal njaboot gi njëkkeel sa bopp daal ciy teg ñépp nag mu ne loolu ñëw na ci alquranul karim ci ñaanu ibrahim dafa ne rabbana igfir li wali walidayya walil muminina yawma yaqumu xisaab yow yàlla jéggal ma man ibrahima la de mu ne yow sunu boroom jéggal ma man ak sama ñaari wayjur ak jullit yépp gis nga kan la jiital boppam doog cee teg ñaari wayjuram doog joog te teg jullit yépp mu ne ñëw na encore ci ñaan rabbana igfir lana wa li ixwanina allazina sabaquna bil iman ñëw na ci alquran ci saar wu ñuy wax suratul xasri aaya fukk ba ñaan ba fa yàlla di joxe pour ñu ñaanal jullit yépp ka koy ñaan dafa ne rabbana yow sunu borom igfir lana nag ñu jéggal ñun ba pare mu doog a wax wali ixwanina allazina sabaquna bil iman nga teg ci sunu mbokk julit yi nga xam ne ñoo ñu jiitu ci ngëm mu ñëwaat ba tey wastaghfir li zambika wa lil muminina wal muminat même booy jéggalu bàkkaar sax sa bopp ngay njëkk a jéggalul nga daal di ciy teg jullit yi kon mbokki jullit yi ci tënk bu gaaw tey bi iznillahi tabaraka wa taala lii mooy sunu dars su ko defee ñu yemale ko fii ñu bàyyi leen incha allah ngeen jël beneen bunt bi te mooy laajte yeeg nammanteeku yeeg jéggalante yeeg ziyaarante yi ñu ñaan sunu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu yal na nu yàlla nangul nangul leen asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.